بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا mbokki jullit yi mbokki waa Taskiru Saba ñu ngi leen nuyu di leen siyaar bu baax di ñëw yéen ci seen numéro 471 numéro bi ñu weesu woon ñu koy tudd dañ cee jóom di leen dégg lu baax nag ci altine ji démb moom it ni ngeen ko xamee rek bàyyi ko Touba jëm si Ndakaaru waxtu taskir jot fekk la ci biir circulation bi waaye noo ngi koy jégalu bu baax ci ñi ko doon xaar te gisuñu ko lañ ci tegu di leen wax déwén ci yàlla fekk déwén wa kullu aamin wa antum bil xayri yàlla yàlla defal nu tawféex defal ko jullit yépp wax ci jàmm ci àdduna ak nawet bu barkeel di delloo siyaar mbokk yi nga xam ni aman nañu yéene àggale ko ci sunu barab ba ci Touba muy siyaar si ak ñi amoon yéene te teewuñu ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne yëguñu ko woon te ginnaaw bu ñu ko yégee dañuy soog a woote ñu ngi leen di delluwaat siyaar boobu di ñaan borom bi boole ko ci siyaar bi nga xam ni moom la Cheikh Amadou Bamba waxoon ci sunu maam yi jóge senegal dox fekki ko ak yi jóge ci yeneen réew yi fekki ko mu xam le ni yàlla defal na ko kat ku ko fekk fii di ko siyaar si kat euh, siyaar bii yàlla del ci defal nga tàggu ay bàkkaaram nag alaxira te li ci sëñ laat wax loola dal na xel ci euh, siyaar boobu kon yàlla ko yàlla bool ci siyaar yooyu ala ko laaj dañoo tàmbali woon nag naka la jullit bi di war a waajale euh, at muy ñëw ndax noonu ci weer wu mujj wi fin d'année ci atum hijiriya ak jullit ñi lu ma mën a ñàkk nag tudd nag moom Modou njaay Diop mi jiite woon mbooloo mi keroog ànd ak suñ Modou Karaloo eh, suñu xaadim loo du ngin gi néew moom nga xam ni moom it macha allah waaye Ahmadou Diakhaté mi doon def soññee bu am solo boobu waaye suñu doom Ahmad Dame Ndiaye moom it ma jànn sama téer boobu waaye suñu bàcci bàcci caam suñ Touba Diouf Mor Guèye Madiyana sama doom Bintu soxna Bintu Bintu Diop macha allah moom rek moo fay jigéen ñëw am ak rakam Bintu nuyul ma sa yaay bu baax a baax a baax baax ne nag maa ngi leen di waajal lu rëy ñoom awo yi ndax gis naa kat tam xarit bu ñëwee ñoom dëgg naa ñooy joxe te kenn du leen jox ndax ñooy jox ñaareel yi ñaareel yi jox ñetteel yi ñetteel jox ñeenteel yi kon ñi woote am ngant ñu yàlla yàlla boole tuyaaba ji kon ab tàmbali la rek xam naa nag dañ koy ñaan ginnaaw tabaski gune rek ah buñ ko mënee yeesalaat ñu yeesal ko ndax internet bi di ci baax na lool waaye gis nga bis bu gisee daa am luy doole ko waat am luy doole ko ci gise boobu wa tabarakallah eh, mu mel ni noo ngi woon toll woon ci eh, jullit bi na xool ba xam moom li weesu bala moo kontaan ci am na nangami at di def ay anniversaire moom la xool ba xam at mi mu génn jàng na wala jëgul ah Sénégal la ko gis na ni at ñuy dégg nañu fële ci Daaru gone gu ndaw tolli jàng alxuraan nekk ci fitra fitra mooy sell lool ko yàlla bindee woon ci azal noonu la mel ñu rende ko ñu rey rey ko tudd fàllu te saal fii ci tëngi jit amaat na ma neen fàllu ak yeneen dee yu ñaaw yooyu ci at mii rekk at mii ci leen gis ñaari góor jigéen yuy xeex ndax lan benn góor jigéen bi kat ginnaaw moom kiyee jëkkëram mu fekk ko ak beneen góor ñuy ñetti góor loolu moom jar na xeex te ndeka yàgg nañ ci koñ bi fii ci ndakaaru fii ci Medina gi seen tur ngi fi ñëpp ak ñëpp ñëpp xam ko ndeket de am nga foog sa ñaari góor yu luyee ci benn béréb dëkk fa wala ñu moom seen kër yow saxal du dem ci lenn ndekete couple la couple te loolu kat mbokk yi euh, euh, <coughs> euh, ñii nga xam ni ñoo teg loxo ci Sénégal colonisé seenu waaye changé colonial bi ñoom dañ ñu imposé loolu bëgg Euh, buñ yem ci rek may leen seen liberté bu leen kenn laal waaye nañ ko indi ci assemblée bi atte ko publiquement góor ak góor bu leen neexee takkante jigéen ak jigéen bu leen neexee takkante xaraam xaraam xam ni fitur fitratullahi lasi fatara naasi alayha euh, wala sunnatullahi ni yàlla bëgge woon ak ni mu woon dañ koy sànni ci àll ba indi nag ak mbon koo xam ni ci la yàlla alaye woon ñuñ loot ña ñi nga xam ne ñoom la loot waxan ñu ba dina sosoog léegi di mbon gi yéen ku jëkk def muy góor guy sëy ak góor ni moroomam ci jigéen ñaa ngi ko sama rakk ji wax rek nee na wàllu góor jigéen nee na bu ñu demoon ba ba jigéen ñi manqué sax nee na li bon bon bon bu boobaa sax nee na ñi koy def amul lay waaye jigéen ñoom ñoo ëpp góor ñi ñoo ëpp góor ñi fuuf waaw moo tax yàlla programme góor ñi mën nañoo takk ba ñeent mën nañoo takk ba ñeent gis nga yàlla programme da ngay takk soxna mu am quarante cinq ans dugg ménopause pose mooy dem ba mun a am doom am nañu ñu koy weesu nag léeg-léeg quarante cinq ans yi ku góor ki moom ba quatre vingt dix ans muy moo mën na am doom ndax la waaw boo demee ba am aaw bi am na quarante cinq ans yàlla may la ba léegi kàttan nga wér ah, man takkaatal lu ko jiitu sax takkaat nga am même quarante cinq ans yow fekk yaa ngi dund rek yow ku góor gi boo amul jàngoor gi ju ne ci yow yow man nga am doom jigéen gis nga ni ko suñ borom limité programme suñ borom bi amul tablil amul remplaçant bu ñu ci duggee rek échec dugg nañ ci nag gis nga échec nañu feebar yi ñu ëpp ci ñi sida ñëpp mi ngi ëpp ci ñiy jëfandikoo wàll ngóor jigéen lu bone noonu ñu dina ko imposé di ko wax ak di leen aar guddi gàmmu ñu fekk leen ñu jëfandikoo eh, ay robe de mariage di mayante ci seen biir ñu jàpp leen mu mujjul fen fenn fen xam naa la noonu fii day nekk fi eh, ngóor jigéen ci jamonoy léegi ji moo ëpp sécurité nekk fi imam boobu ma ngay comparé ñi ñu jàppan ca Kaolack guddi gàmm te bàyyi leen ak kañ jàppan ca Kaolack tuddi imam ndaw waaw ak mbon bu àggee foofu nag mbokk yi wun warunoo tiit warunoo jàq ku ne xool lan mooy ci sa responsabilité nga def ko ca ah waaye dara dara dara dara mbokk yi ci yàlla nanu xool euh, ren màkka waar ga fa am ngelaw ñëw moos ba yëngal mbalaanu kaaba gi ba ñu gis kaaba gi mu futteeku loolu bariwul lu muy am de ci taarix bu ma juumul def naa banu abbas jamono yooya ba nguur ga demee ba am nu ñu mel loolu amoon na fa waaye soriwul dara nag seen nguur it daal di naax saay fii nu toll ku ne gis euh, euh, fii ñuy dem dafa siyaare yonent bi nekk alayhi salaatu wasalaam jullit yëpp bokk ko seen royaume daanaka Israël la gën a mën a jëflanteel as ci Iran ak Irak ak Liban ak réewu jullit yooyu def tasaddub ci diina ji trop ku gëm fekkere bi ñu gëm fii Sénégal ñi fi nekk di ay wahabiya lakkal nu trop trop di saaga suñu mag ñi bind ci ay téere saaga ndey bu jamono àggee foofu mbokk yi ah ñi yàlla mbugalan di wàcc ci ñoom ay doj ñi mbënn laa waxoon bëgg dem rek yaa ngi dégg ci àdduna bi foo xam ni ndox moo leen jële fa ñu nag ma daa bari dégg ci àdduna xam ni dañoo amul ndox ñoom moom taw lañ soxla amuñu ko amuñu ko lañ bayal ma nga tàmbalee de kooku mooy yàlla subhanahu wa taala al القادر هو الله هو الرحمن هو الرحيم هو المالك هو القدوس هو السلام هو المؤمن mooy latif waaye mooy almuntaqim almuntaqim ku mën a fayantoo bu ko neexee latif mooy ki gën a ñeewante sa waajur yow alxabir ki dara dara dara umpul ki dara umpul jabaar ki dara tëwul am na capacité def lépp al aziz tedd nga dong fi yàlla layam moo koy joxe xoolal loolu rek boo ne allahu quatre yépp mi ngi expliquer waaw kan mooy allah juróom-ñeent fukki tur la benn bi rek moom mooy zaat mooy tur wi juróom-ñeent fukki ak juróom mi ngi expliquer allahu kat moom mooy nangam yàlla moom mooy nangam ba ci asabuur wallahi ku mën a muñ la lii de bu doon nit na tukkal na àdduna bu yàgg yàgg yàgg lii bu doon nit ñenn ñi faat na leen yóbbu leen àjjana ndax se xolam sedd wala mu defal leen àjjana yi àdduna ñëpp di ko gis waaye nag moom mooy subhaanahu wa mooy kan sa xel ci jéem a dem ndax fa kullu ma yaxtur fii baali ahad fa bi lu rot xel rek rek rek yàlla du loola moo tax ñuy tëj xelu nit ki mu bañ di xalaat ci sunu boroom ci jëmmam jëmmam moom mooy kan ndax da lay yóbbu ci nga weddi ak nga am yàlla noo koy melal ak dayo boo ko jox te loola yàlla def ko def ko ëlëb nit ñi ba nit ñi xamul moom mbokk rawatina mbokk mi ñu wax muy mbokkum taskiru sola waaye di at mi ñëw de ci internet bi den ci ñëw nañ ci bëkk démb ci jikko yu bon yim def ci noonu ba noppi waaw benn mbokk nee na ma de yi nga wax yépp am na am na yu ma ci dal nee na ban nee na internet bi damaa berde ndax nee na am na waxtu yoo xam ne daal man dong dong dong nee damay tëju wax dëgg yàlla waaw bëgguma ku fa ñëw ak ku mën a lu ma jige jigéen nee bëgguma ku ma téléphoné nee na gi moom dëgg la man ko ah, wa uslatun an suyuxin la suñ tubaa waxan bil ishaaraati beru ga da ci doon am njariñ mooy yaa ngi beru ci ñoo xam ni ñii day Eh, dañuy def ci yow di dindi ci yow def ci yow di dindi rek waaye nag boo fekkee nag ne léegi machine la boo yor adduna bépp na ci biir boo ubbee rek léegi léegi am na benn xibaar boo xam ne mi ngi ñëw léegi léegi léegi léegi léegi koo dégg mosoo koo gis sori lool yooyu nag boo ko toppee te muusoo ma de biñ ci bi ma demee ba gis ni léeg-léeg ma bëgg na jullee jee jàkka ja mu dal ma benn bis ma dégg liqaam nañu euh, bu fekkee ni diggante bi peut-être da ngay jàpp doo fekk benn ràkk ci julli ba laa sàkku pexe sama doom Mariam ma laa ko ni doom installeel ma fii saa yu waxtu julli wi desee quinze minutes ah, na nodd mu daal koy installé waaw ba fi mu toll nii moom fu fu fu waxtu yu jubee rek mu nodd boo fàttee ak boo fàttewul te da xam ni ah cinq mille yi de mën naa cee consulter ba xam lan moo nekk ci sama compte whatsapp wala nangam bul ci dugg boo cay dugg di tardé fa nga doon dem ñu bari ñu ngi tardé rendez-vous léegi ci internet moom moo tax ñu tardé rendez-vous lu ma lépp nag li ci baax a point waaye lu bon daa gën a neex ci xol yu baree baree bari waaw li ci bon moo gënal ñu baree baree baree baree bari ndax lan environnement bi ci boppam moom moo nekkatul environnement boo xëy dafa rabbaaniya waaye environnement boo xam ni ah a seytaan la gën a jublu waaw dëgg yàlla loolu bu amee am na ñu sañatu la noppi am na ñu sañatu la toog waaye am na ñu sañatu la nelaw ba yàndoor xanaa dem ba nelaw dab mbokk ci yàlla ah, lim nuy sànkal ci ay waxtu mbokk yi ci yàlla yow mi nga xam ni génn nga 1439 euh, fukki weer ak yaar la waaw euh, nelaw nga ci ay fan yu bari de ah, ndax lan ah mu ni man de pourtant juróom-ñaari waxtu laay nelaw rek guddi gu ne te bëtëg du ma ko nelaw waaw 24 heures boo ci génnee 7 léegi kon léegi 7 fois 30 yooyu cent 210 heures la. 30 jours yi 7 heures yooyu 30 fois yi ah ñaar téeméeri waxtu la ak fukk ñaar téeméeri waxtu ak fukk neuf jours day ñaar téeméeri waxtu la ak fukk ak juróom-benn kon kon daanaka yow nelaw nga neuf jours di waaw neuf fois douze lan la cent huit la ah at mi nga bëgg cee nelaw lan ñaata fan ah, téeméeri fan ak juróom-ñett. allahu akbar ñetti weer ak genn walla ngi noonu yow mii nelawul juróom-ñaari waxtu te am na ñu nelaw lu ko ëpp am ñu nelaw juróom benn calculer rek defal yow li ngay nelawul calculer ko daal di xam yow kon nit ndekete am na juróom benn fukkaat ndekete vingt ans yëpp yëpp da koo nelaw quarante ans bu xoolee avant muy mesure lu muy dese vingt nangam waaw yee ko fekkante gone ba yee ko fekkan muy seetaan théâtre yu ko fekkan muy diglu musique yu ko fekkan muy def neen waaw tuuti lay am ci ya ko fekkoon muy julli ay par cinq minutes deux minutes ay trois minutes te sax julli gi est-ce que baax na est-ce que teewlu na que xam na lam doon julli mbokk yi fu ñu jëm lii la yàlla xam nag ba tax mu jël nag defal nit kii bu defee benn bu baax mu ko aw bind ko yokkal ko ca neuf muy dix mu pointé ko ci fu fu ko yàq dutul fekk bu defee benn bu bon mu taaxirlu taaxirlu bu jéggaloo mu jéggal ko ko bu ko neexee ko mu defal ko ko bu baax bu jéggaluwul mu bind ko bind ko ci fu ñu koy mën a changé ba keru mu koy jéggaluwaat ba atta bokkaale ñuy wax yàlla du ko jéggal kenn mooy yàlla du ko jéggal ko jéggaluwul yeneen bakkaar yi mën nga ko bañ a jéggalu yàlla jéggal la ko waaye nag bokkaale moom da nga koy jéggalu yàlla soog la ko jéggal rek ñun dañoo waroon tiit ñaa at mi ma weesu man ndekk ñàkk naa ci lii lépp lépp lépp te at mii ñàkk naa ko ñaata nga am man am naa cinquante ans ren déedéet da nga naa ñàkk naa cinquante ans ci sama dund li nga am kay moom mooy at yi la def si taxaw moo ñaata la waaye léeg-léeg moom sa fi ki mu mel ni kon waxtu mu ngi jot te heure bi moom xam nga rek kon nu yem fii ba suba nu continuer ak bi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh